ñi leen bu dee nañ nañ far Macky Sall rek la ñu bëgg leen wax nag engagé wul assemblée générale est-ce que du ñu am ñaari kooku. gars yi ak ak le ministre Ndeye amoon na ñu 2007 man naa seen bopp ñoo coordonné kenn xamul échange bi tey jii parce que lu ma dérés ci ba dama leen wax waaye ñu bëri fekk woon nañ ko fi ñu seetloo ko mu jël biir ba. ñaaxeen mu jël li jëles di jox di daje di waxtaan di diisoo ba alhamdulilah on a eu les meilleurs résultats ma ni leen léegi nag yéen seen position ñoom ñaari ñaar ba ñetti position la nag benn dañuy jàpp ni ñoom ñëpp dañ d'accord nañ bi duñ ko ndax parti bi ko décidé bien que nee président yow ko ko nangam nangam c'est le ministre moo ko moo ko sax waaye ñoom ñëpp d'accord nañ ne ko mettre en cause ñu bu ñu d'accord ci loolu te euh, ministre moo moo nekkoon kon moom la ñu war a jox coordonnateur pour mu nekk équitable mais loolu mooy seen position te li ñu moo leen di dëggal ni euh, am na reconnaissance xaw ma dem bu bëri dem dem na ba ñu jox ko le matériel électoral une partie xaw ma ay loolu la leen woon ni lii mooy wane ni parti bi reconnaître na ko comme responsable te ëllëg itam nii lay demee. bi mu bi ñu defee seen contrat bi mu fay ma ni leen après ñu rendu compte ni d'ailleurs parti bi woote na sax gënu année la. nañu reporté ñaari réunions yi ndax bëggul bureau bi bu nekkul consensuel euh, nañ ko mais seen position daal moo di comme le ministre il est, euh, comme Diancy, il est déjà très potentiel. Ensuite, beaucoup de familles, de familles président Macky Sall, font mort des concessions pour que euh, nous ayons consensus. Dernière chose, ñu ne lii ñu li ñu xam ne tax ñu téye ak Seydou ak le ministre mooy jaay euh, si ñëwul ay mbir ñëw kon dañoo ñoom ñaar dañoo war a ñëw ñu jàkkaarloo li ñuy loolu moo fa bàyyi Pape Dieng moo fa bàyyi euh, Seydou Mbow man de nag dañuy rendre compte mais ñun fu ñu taal ci réunion ak ni ma ko gisee gaw ma ni daa am compromis pour dire vrai je pense que ni ñuy def nañ def suñu résolution ñun ñu koy ak kii de toi ak ñu woote résolution li ci wax ñu wax ñu ko moi je pense que ni fi mu ne amatul dara ñu daal. dañu fi daje tey doon élire le comité électoral suñu doyen Alilo moom la ñu def président d'honneur du comité électoral du département Tivaouane. Dianthi Mbengue moom par acclamation. moom la ñu def tey le coordinateur départemental pour les élections présidentielles loolu nag ñi ko def daje bi Moustapha Sylla mooy trésorier bi nga xamee ni moom la ñu jël au niveau du comité électoral le maire de Niakhène ak l'ensemble des responsables politiques parce que ni ko parti bi bëggee mooy dañu def loo xam ne dafa yaatu toutes les communes se retrouvent, tous les maires se retrouvent, parce que dans cette réunion, nous avions eu 14 maires qui étaient présents. am nañu fukki maire ak ñeent yoo xam ne teewoon nañu député yi teew nañu waa au conseil des collectivités territoriales teew nañu waa conseil économique social et environnemental teew nañu parti politique yëpp teew nañu ñëpp ñoo xam ne ñëw nañu les conseils municipaux ñëw nañu kon nag Diagne Simeng moom la ñu jël comme le coordonnateur départemental du Tivaouane je vous remercie. dafay benn région boo xam ni ah dañoo nekk ci benn coalition muy la grande coalition de la majorité présidentielle ñu désigné ci ndigalu président de la république mu ay monsieur Aymérou Gningue mu doon le plénipotentiaire kon nag moom moo amoon. Euh, droit convoqué réunion bi mu ñu convoqué nag ñun ñëpp daje nañ fi commune euh, département Tivaouane mi ngi am lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay commune tey jii fukki maire ak ñaar wax nañu présent ci biir saal bi maanaam teew nañu am na ñett yoo xamante ni yónni nañ seen adjoint fi ñu amul maire muy Koul muy Pekes muy également Tilmaxa yónnee nañ fi seen plénipotentiaire yi nga xamante ñoo fi nekk député yi ñu ngi fi. au conseil des collectivités territoriales ñi ngi fi le conseil économique social et environnemental ngi fi kon nag li ñu def fii lu ñu validé la ak ñi ko war a validé ñoo ko validé ñu dénk ma la coordination bett na ma waaye it nangu naa ko quand nangu charge bi xam ni nag liggéey la laaj liggéey boobu farse ne nañ ci dem le plus largement possible ku ci war a bokk ñu boole la ci fu ñu war a dem ñu dem fa joxaat ndam le président de la république incha allah le 24 février 2019 monsieur le président du ma fàtte ni jëlagum nga lu mat ñaar fukki million teg ko ci taabal ji man nag la ma waajoon dama ko naroon dugalaat wante nag man tamit dinaa jël lu mat lu mu néew néew fukki million teg ko ci ñu démarré suñu campagne lu tolloog fanweeri million defe naa ne nag lépp suñu parti bi joxee ñu campagne bu ñu joxul ñu campagne gagné delloo la président de la république joxaat ko deuxième mandat jërë ngeen